Mm-hmm. boobu société day daggatoo <laughs> day daggatoo léegi nag ñun am nañ lu baax mm-hmm. ñu mel ni sëñ Basiiru mii ku leen am fésal leen mm-hmm. keneen ku am ku baax fésal ko ñu bon ñi maanaam nga tere sa bopp di wax ci ñoom nga tere ko sa bopp di bëgg lu baax maanaam pour nga xam ne nit ku baax nga dañuy fexe boo saa yi ñu gisee gis la ak nit ku baax ku bon moom lu mënta ñàkk rek ci ngay toogandoo moom man mi it marif ma toog ak nit te jotaay mooy tax mais bu ma ci amee pexe day day day dañ hmm. fan yi bari naa ci fi ngay xamee ne nit ku baax nga wala nit ku ànd ak ay nit ñu baax nga hmm. yenn saa yi ngay toogee ci nit mais dañ lay déconseillé am na ci foo xam ne ñu ngi ma koy wax ne loolu yàggatul hmm. ndax ku diggalanteeg yow ne la nangam laay def heureusement ki tax may wax sax mi ngi ni message sama ngi nii di doog a wàcc maanaam jóg tey ne la dama bëgg nga defal ma nangam ak nangam. Hmm. nga jóg di ko def ñu jékki-jékki jàpp ne émission wu buzz wala insolence wala nangam la ñu soxla bëgg la def noonu. Hmm. te fekk li nga waxante woon ñu teggi ko ma ne leen amul benn problème. Hmm. weer yàggul dama diggante woon ak ñoom nangam. le premier le deux ba lay la cinq ma abal leen dootu ngeen ko gis. parce que man ku ma ci woo di ma ñàkkal fay wala xuloo beeg yooyu. du ma ci da nga may tegal luy amal njariñ nit ñi ma ciy wax. waxtaan nag mënta ñàkk mën nga woo nit du chaque fois mënoo tànn kii mais koo xam ne da ngaa war di def ak moom chaque jour. Mhm. non kooku dama koy tànn moom. am na ñoo xam ne de temps en temps mën nañu seq jotaay. Mhm. périodiquement. mais buñ ko dee seq boo fa waxee parce que nit est-ce que nit mas na dégg ci sama kàddu ma saaga pourtant dinaay wax hmm. parce que ki ngay wax day jàkkaarloog yow ne la c'est des contre-vérités c'est des maçons c'est hmm. pas vrai. waaw ñun souvent dañu ah, préféré préféré beneen langue ah, loolu nag yaras la te man yarasuma. <laughs> jërëjëf li ma jàng muy wolof. <laughs> Hmm. boo fenee dama lay wax da nga fen loolu du saaga aw ma ci problème. bu ma ko defee it wax ma parce que di taxaw naan nii nag mën ma fal ko wala yu demee mm, noonu mm. mais saaga ndey laata may génn ci média maanaam 2008. Mm. boo ko génnee samay at diggante 2008 ak léegi li ci des du bari de. laa taxaw jël ne man lii di waat fen saaga. banaa ko sama bopp. Mm-hmm. damay def kéem kàttan. ba ko. Mm-hmm. di dindi li mën a dañ di dañ. ba waat waatama xaw a të te yaakaar naa li nit di gis ma koy def sax bariwul <laughs> bariwul mhm. te yenn saa yi rek li da nga ma wax lu ma jaaxal lool ma tiit lool pour pour mhm. mën ko wax mhm. te nit yeggale yegg yóbbu saawala fuy tax mu tiit moom <laughs> yaakaar naa jamono yi moom bon bon lu nekk mën a am nag moo tax quoi nañuy defar kon am nañ ay sëñ Basiiru ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tey ci lu baax lañ leen xam mais dañ leen fës la voilà euh, jërëjëf euh, parenthèse la woon ñu di ko ñaanal aussi yàlla fay ko ci liggéey bu am solo bi mu def ñu daal di rek commencé ak li nga xamante ni rek moom mooy sunu actualité bu ci njëkk nag lañ koy doore muy euh, démission bi nga xamante ni bu ñu sukkandikoo ci kii di Cheikh Oumar Sy di ab jegeñaale ci Amadou Ba nekkoon deuxième ci élection présidentielle yi ñu génn journal bu bëree di laas nag moo ñu ko xamal Saa Wolof dafa mel ni Amadou Ba. Euh, xaw na daal di yàqoo ak euh, la coalition Benno Bokk Yaakaar wala APR nuñ ko déggee tellement que ni daal léegi mu ngi bëgg a sóobu ci li nga xamante ni nag moom mooy langue politique dem ak ay propre moyen bon Amadou Ba génn APR wala génn Benno bon man loolu mm-hmm. conseillé wuma ko parce que mm-hmm. tamit nit ki nga dem élection ñu gañala du gàcc nga mm-hmm. nekk sa parti ñu lay mettre le bâton dans les roues mais da ngay taxaw xeex ko tey man pour man bu dëggale woon boppam mën na dem APR mujj ci ci moom. Mhm. mais bu fa jógee APR day xalaat tas parce que du Macky Sall bi mooy mooy mooy mooy defar APR te dèjà sax am na lu mu doon def tey loo xam ne dootu ko man mhm. te yaakaar naa yaa des dossiers yoo xam ne bu tegee ci taabal dana talati leneen kon bu fekkee ne mhm. am na xel xelu na bu ma doon moom du ma jógee APR parce que dooleem fa la nekk. maanaam mooy chef de l' mais lu tax mu mu doon ko. kon baatu chef de l'opposition bi pour mu doon lu kii dafa war a tekki ndomba tànkam ci ak ba pare dindiwaat déclaré na chef de l'opposition bi bu leen ma ko joxati parce que am na lu ci war a am buñ ko tegee mu war a nekk fan nga ko amee lu tax nga am ko APR ay nit a fa nekk. Hmm. man pour man formation politique yi dañu war a œuvrer pour mu wàññeeku. te lii wàññiwu ko day tax hmm. day gën a yokk amul benn sens quoi pour man hmm. li may li may mais le chef de l'opposition mu génn ci euh, parti bi mu nekkoon am parti boppam loolu aussi est-ce que. nekkul mais doonatoo ko parce boobu boo ko nekkee nombre bi nga am fa nga ko nekkee man nga ne ma parce que élection. Mhm. pour rendez-vous benn mhm, da nga def. waxtaan ak i nit convaincre leen ba mhm. a nekk ci sa ginnaaw nekk sa directoire wala nangam yoo ni dafa nekk ci biir mais loolu moo partee ki mais toogal foofu yàgg gëm ne nit ñi war a dañu war a toog fi ñu nekk Mm-hmm. combattre li nga parce que li la mën a may Sénégal Sénégal ni nit ñu toll. Mm-hmm. mais loolu noonu kon tey effort boobu boo ko defee ci parti bi nga nekk ay nit lañ. Mm-hmm. borom yi xalaat lañ kon tey ñooñu dañ la jox dëgg. pour man toog xeex ko ba ba daan continuer yegg moom a gënal di di naan dangay ngay. jóge di tegaat leneen quoi yokkaat nombre de récépissés yi rek la. mais est àndee bu ñu àndee doon benn bu ñu àndoon doon benn mënuñu ko may sens. pour euh, deux mille deux mille vingt neuf mu mën a. mais loolu mooy l'idéal mais nuñ koy defee parti da nga nekk. Mm-hmm. wax loo xam ne ni yow ki ko jiite bokk leen gis-gis nga def li ñu wax courant. Mm-hmm. Serigne Diop defoon na ko PDS. ak keneen ak keneen courant mm-hmm. boobu boo ko defee pour lan la. mooy ñenn ci waa parti buñ gëmee li nga gëm ànd ak yow. léegi yow boo amul nombre. mais da ngay continuer nekk demaat tënku te xam ne li ñu wax ñooy mooy dëgg. li ëpp ci ñoom li ñu wax. loolu mooy dëgg parce que da nga taxawoon ne formation bi laa tànn. du mais li nga fay nekk da fa war a nekk di ko xeex. Mhm. xeex bi mën na laa yóbbu ci courant. courant boobu boo ko tegee tey convaincre nit ñi parce que tey Macky dafa ñàkk jom Macky daf ñu yàqal Macky dafay dafay dafay. Mhm. ñoom ñëpp waa APR yëpp xam nañu ne lu ëpp ci ñoom xam nañ ne Macky Sall moo leen yàqal. Mhm. mais loolu boo ko xamee taxawal foofu lijjanti ko mais du pour génn parce que am na ñoo xam ne tey am na lu ñu participer ci appareil bi. ba nga xam ne bàyyi ko fii dem wan ko ginnaaw dootul xalaat. Mhm. génne ci li ci tax léegi nag bu fekkee ne yow da ngaa dem ba mënatu ne bon dama ko koy nangul ah parce que kenn ku nekk accessoire mhm. mais man saa wolof laa Sénégal bi ma bëgg di dundu dama mhm. bëgg ne parti yi war nañu régler seen problème ba kuy gagné gagné foofu ñuy dem congrès nag dañu war a def ci rigueur parti yi di dem congrès am ab boo xam ne dañu dem congrès par force di déclarer li nga xam ne mooy financer parti bi lépp lu parti politique war a am bu organiser taxaw nga koy def boo ko matul ñu dissoudre la plus simple que ça. mais lan nga jàpp ne mooy avenir Amadou Ba ci wàllum politique. non avenir bu lëndëm gisaluma ko avenir même étant APR mais bu génn lay gën a bon. Mhm. voilà loolu laa gis. sansam man pour man mi ngi gën a nekk ci nekk APR xeex fa ba daan. Mhm. boo mënta xeex APR ba mënoo koo xeex loolu tax nga mën a génn dem mais mooy mën a ne réew mi mënoo koo xeex pour jëli ko. mais est-ce que APR aussi ci benn phase de déclin boo xamante ni toog fa aussi tamit du nekk ah, perte ci man na saytaane xeeb dolli ñooñu moom man man damaa bokk damaa bëgg ci ñi nga xam ne APR moom day kii mais du tee su may wax ci APR politique non hmm. su ma ciy wax wala hmm. bennoo damay bëgg maanaam même parti yi yeneen yi sax hmm. li may wax mu mu wax même li may wax ni c'est valable pour Pastef ak keneen ak keneen ak keneen damay wax ji xam nga parfois man damay bëgg a taamu parce que bu doon APR rek mën nga wax ma ne la ñooñu garaawul daal ko fay a ñoo xam mais damay taamu man wax loo xam ne dafay amal njariñ réew mi askan wi. Mm-hmm. parti politique yi nekk ci réew mi. APR nga ma jox mais nit ñi gis gis ne man waxaale naa ba waxaale Pastef waxaale naa PDS waxaale naa waxaale naa waxaale naa. Mm-hmm. loolu la quoi. Mm-hmm. mais euh, est yaa ngi xaar euh, Amadou Ba mu dem rangé wu ci benn parti wala mu créé. non loolu man xaw ma ci dara. <laughs> mais mais mën na logique politique ma man mais li ma wax ci Amadou nag doy na nag. ak émission mu mën ma ko jagleel Amadou. non duñ ko ko jagleel. <laughs> ah mais yow ci tontu parce que wax naa ci li ma ciy war a wax. dañ hmm. dem ci leneen. maa ngi euh, voilà mu ngi noonu kon ñu dem ci beneen ponk bi mu nekk lu soxol